candidat euh, taxawaay bi ñu bi ñu am noo ko jàngatee gis na nañu ci bëri ñu engagé wu démb ku ci mel ne Anta Babacar surtout les les les femmes Mimi Touré moom tamit gis nañu ko arrêté nañu ko euh, am na ñoo xam ne si ne kenn gisu leen kenn déggu leen noo jàngat seen taxawaay tamit. waaw mais li li may jàngat ci ci taxawaay balaa maa ñëw foofu sax. dama bëgg a ñëw ci ci ci lancé bi ñu nekkoon léegi nii. lancé bi dëkk bi xam nga lu tax génnagul. am ñu bëri dañu jàpp ne xam nga dëkk bi doit être waaw Amadou Ba doo ko Amadou Ba moo ko war a contresigner mais nañu nañu génneel décret boobu ñu gis ko non loolu mooy wax mais na ko génnee ñu gis ko yow décret bi génnagul li xew démb waru woon xew woon xew merci tant que bi génnul ñoon dañu waroon bàyyi ñu baat campagne mais ne bu ko génnee yi bu ko parce que dañ koy attaqué moom nee na bu génne dana ko attaqué tey mais ñëpp koy attaqué xanaa ñëpp koy attaqué ndoo waaw ñu attaqué yóbbu bu ñu attaqué ko waaw ñu ñu ñu ñu ñu ñu cour d'appel ñu kase ko soit ñu euh, euh, mu mu mu mu doxal ko waaw léegi léegi loolu tey ji sa décret génnagul nga daal di gàntal affaire bi léegi décret bu génnagul nga gàntal ko peut di leen réprimer mm. loolu ban ban état de droit lañ ko mën a xoole ak ban gis-gis lañ ci mën a am donc loolu je pense que ay ay ay ay yu bëri la yoo xamante ne ñoom ñi koy def xam nañ ko xam nañ ne ñuy def teguñu ko ci yoon. Mhm. parce que nit ki kay mais état këyit la xam génnee naa li am jàpp ci mais fi ñu toll nii del xool ndax di nga gis rek après bu ñu demee assemblée nationale démb maa ngi dégg en commission mu am ñu doon wax naan euh, bu ñu ko daxee le vingt cinq août dafay tombel euh, veillu màggal dafay jege ak màggal gi ak nawet bi donc nañu yóbbuwaat Macky Sall mu dem le vingt cinq février un an am na ñeneen sax ñu ne deux ans nañ ko jox deux ans pour dëkk bi gën a kii pour mu euh, toogaat ñii ñi ñii ñii ñii hmm? ñii est ce que liggéeyuñu leen est liggéey jàmm loolu tamit non c'est-à-dire problème mooy <laughs> fit bi ñu am quoi hmm. non te li ñu yebal Sénégal ba yaakaar na ñoom Sénégal ñoom dañ ko doon ci seen maam wala dañ ko doon seen baay wala ñoom ñoo ko moom Sénégal ci ay loxo la nekkoon jëla ci loxo yooyu jox jox leen ko te bu ñu jógee ci seen loxo day dem ci yeneen loxo. waaw mais pourquoi ñoom ñu bëgg jël réew mi jël nit ñi en otage ne ñoom li ñu bëgg par force loolu moom am te jaaruñu ko ci benn yoon jaaruñu ci benn loi. waaw salfaañe loi yi comme ça ñu maa ngi jot communiqué léegi nii ñu ñuy wax ne ministre bi suspendre na tamit données mobiles yi internet bi wala loolu waaw xam nga nit ñi ñu ngi ko doon ruumanaat depuis ce matin ñu ngi doon même même même liggéeykat ngi doon artu dem bay dànk tamit mhm. ñu ngi doon ñu ngi doon artu ah tamit mhm. ah. ñu ne suspendre nañ euh, données données mobile yi waaw mais xam xam nga loolu tàmmal nañ ko bee passé doon fi am bu dara yëngatu bu dara yëngatu ñu am a restreindre après application yi après boo mu Facebook lañ jëm xam nga amoon na benn moment WhatsApp ñu mais loolu nag mooy dictature ah xam nga maa ngi dégg Babacar Fall di ko wax ce matin Bokar mu ne ko da di jouer apprenti dictateur mhm. apprenti dictateur la ñuy ah bu yàggee nag dictateur ngay doon parce que soo demee ba nit ki bëgg am informé du xam lu muy informé données yi boo ko coupé am na ñoo xam ne lor nga leen weer baa ngi doog a de seen dépense mënatuñ say jot ñu ngi ci mhm. biir dëkk bi amuñu wifi ci biir Sénégal des profondeurs données kese lañ yaakaar pour xam li xew ci dëkk bi mhm. yow nga coupé données boo jëlee arrêté nu ñu ciy jotee boo jëlee leneen ak leneen duñ ci jotee tëj nga télé coupé données def lu nekk donc fu ñu jëm ak ñun. Mhm. au final doo comprendre lan lañ bëgg. Mhm. forcé nga def ñu benn coup d'état constitutionnel ñu toog di muñ nga bëgg restreindre encore suñu ay liberté. Mhm. Eh, nag yàlla leen ëpp doole. yàlla yàlla leen ëpp doole tey jii fële ci assemblée nationale euh, gis nañu que ni euh, euh, nit ñi joxe nañ fa rendez nañu dem taxaw foofu parce que fa nar a warul jàll. Mm-hmm. muy plénière boobu nga xamante ni dañuy voté loi bi maanaam bi euh, daaneel décret. Mm-hmm. président Macky Sall boobu la il faut ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy dëggal. Mm-hmm. tey la xewoon euh, euh, vingt trois juin. ndax mën na xew tey fële ci assemblée nationale. non du du bokk parce que niveau de démocratie tolloowul. Wade était un démocrate. waaw dañoo bàyyi woon ñu ñu manifester de. Wade dañoo bàyyi woon ñu manifester. Mhm. Wade bàyyi woon na manifester nit ñi dem fa ñëw mais ñii dañoo jël repression ñu jiital ko. boo mhm. xoolee nguur gi dañoo dañoo yàgg jatu taxaw di xaar askan bi mhm. je sais pas si yaa ngi si yaa déggoon nañ fi coowal arme yi déggoon nañ fi coowal lu nekk c'est dañu yàgg préparé wu taxaw di xaar askan wi. ba askan wi demee tax ne xeexatuñu ñu am problème léegi xeexatuñu ñu dem ci provocation maanaam nañ leen provoqué comme ça ñu xeex ak ñoom mhm. foofu lañ toll léegi nañ leen provoqué ñu xeex ak moom nit boo ko sësee ba ci miir boo moytu di nga xeex ak moom li xew assemblée nationale tey jii boo demee ñu la bu fi dugg di bañ benn euh, euh, rassemblement euh, mbooloo daal di dajaloo su ko defee ñu mën a am njort la nga xamante ne amoon nañ ko fële mhm. maintenant nag député nag ñoo war a jël seen ay responsabilité lii ñu nekk nii histoire daf koy bind. Mhm. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. waaw depuis noo noo mënee comprendre loo xamante ne dañ ne Karim Wade moo mbir mi Abdou Mbow yenn mbir mi mel ni mbiram la. bi ma déggante ak benn dossier yi benn député am ñu ngi woon ci plénière mu ne Abdou Mbow moo doon démonter affaire bi moo ko doon argumenté daal di gàddu proposition de loi proposition de loi boo xamante ne ñu ngi ko liggéey ci dimanche non samedi dimanche ak lundi samedi lañ xëy ñu ne dugal nañ ko. Hmm. dimanche ñu woo commission des lois ñu réunir euh, pour président des commissions commission de la réunir lundi tey ñu ne dem ngeen plénière ñetti fan lañ ko dugal l'affaire bi jàll ci côté yooyu yëpp proposition de loi. Hmm. mais anam bi anam bi anam bi ñuy defee te avant loolu enquête enquête parlementaire bi noonu noonu lañ ko doon doxalee ñu dem ba see xam ne enquête parlementaire bi amul issue mhm. amul fu mu jëm amul benn rapport ak mbir bi ñu nañ dugal proposition de loi te ab loi mooy modifier li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy constitution bi yombalee ko noonu yëpp xam nañ ne loolu lépp jaarul benn yoon maintenant nag député yi la ñuy woo ñu xam seen taxawaay Mhm. député yi la ñuy woo ñu xam ne fii ñu bëgg a jëmale réew mi du foofu. peuple bi leen yóbbu foofu peuple bi leen yóbbu foofu mais Macky Sall yóbbu leen fa déedéet ak moom def na ko ba pare mhm. jox na ko benn mandat mu ne doyalu ma joxaale mel joxaat ko beneen mandat mandat war a jeex le deux le deux dañoo war a ñaanalante ak moom si njekk rek teg keneen koo xam ne muy wéyalaat liggéey bi mhm. noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko yàgg a doxalee te noonu la war a demee incha allah maintenant nag bu bëggee yokk nee leen ko déet sëñ bi mënoo yokk nag wax dëgg yàlla tey jii ñu bëri am nañu leen metti mm. parce que yokk bi mu bëgg yokk la te jaaraloo ko fenn su fekkonte ne am na ay argument yu ko wane bu mm. fekkoon da ngaa toog nga dégg tey ñu ne conseil constitutionnel ñëpp dem nañ seen yoon mm-hmm. juge juge yëpp démissionné nañ parce que dafa dafa dafa def ni mu ne man kat wax dëgg yàlla il faut ma defaat que juge du n'importe qui laa koy fale laa nañ comprendre mm-hmm. ñu ne ah wax dëgg yàlla kat bëreel juge électoral yi nga xam ne ñoo war a tënk mbir bi kat dem nañ seen yoon fi ñu toll ni problème am na mais nga crée benn crise boo xamante ni crise factice indi ñu ko imposer ñu ko bëgg ñoo dugal ci crise c'est-à-dire dañoo quitter crise imaginaire wala dem ci crise bu réel mhm. yaa ngi lire démission Abdou Abdou Abdou Latif Coulibaly si mu ne dina dina reprendre liberté mag yooyu yëpp mhm. ñu ngi ko ciy xaar mhm. parce koo xamante ne man bokkoon naa ci ñi am regret bu mu nee léegi nekkatuma journaliste dama dem defi ji politique mhm. parce que Latif fomm ñu taxawaloon Abdoulaye Wade bu ñu ko taxawaloon fii Macky Sall yaakaar naa ne yu bëri duñ fa yegg déedéet yu bëri duñ fa yegg mais nag euh, ñaari nguuru du benn amaana bu ko taxawoon heure bi na ko fekk ci kaso bi mu toog mhm, mhm. parce que diffamation lañ koy collé atteinte à la sûreté de l'État dóor ko ay yeneen procès dóor ko ci biir kaso mu toog fa jëmale suba parce que loolu lañ gis su Abdoulaye Wade daan nga bind lu ne weng ak weng ak weng mm. ba mu demee tey ji enquête parlementaire ba bañ ko weddee ci nekk avion bi ak li nga xamante ne moo di njabootu maître Babacar Seye mm. joxuñu leen six cent millions deux cent millions lañ leen jox mm. est ce que dafa tax après gars topp ko di ko tëj te am nañu doon topp ci nopp Abdoulaye Wade nankal tëjal Latif mm-hmm. tëj ko tëj ko tëj ko waa dana ne non non ma ko tëj mhm. mais bu doon fii la dañ lay tëj dañ lay tëj bu doon fii la ku fi génnee benn livre wax fi naka ñu yàppal tëj la boo waxee ñu ne réew mi kenn du ko doxal euh, dafa dafa ay loi ku fi mhm. diffamé nit loolu lépp nag moo waral tey ji benn amertume bi soxlawul ngay sori Mahfouz defal sondage sa kër sama kër sa buntu kër sa boutique boutique koo waxal mu yii waa ji weere na quoi déggoo amul benn sénégalais bu bu bu d'accord ci décision am na ñoo xam si ni waxtaan naa ak ñoom ay makiste lañu mais d'accord ñu ci li nga xamante ni Macky Sall def na ko ñoom ñëpp ah, amul kenn koo xam ne si ni tey waxtaan naa ci ak yow nga ne ma li mu def moom d'accord naa ci ñoom ñëpp kenn àndu ci kenn kenn kenn àndu ci. Mm-hmm. loolu dafa lay won ni kon li mu def tegu ko ci yoon. parce que mm-hmm. nit ñi aussi dañu day saa yi dañu fi mu ko defe la ñëw ba nga xamante ni la veille de la campagne ñu war a dem ci ay nit ñi tànn seen président de la république. Mm-hmm. ngay leen du ngeen ko fi defee mais saa loolu moom moo garaaw droit boobu nga leen xaj. moom mm-hmm. moom moo moom. te loolu rek la ñu am te loolu rek la loolu am loolu la am cinq ans tous les cinq. di benn problème jàll donc donc Karim moo leen gën. Karim bu ko bloqué mu attaqué mbir mi saaga fi ay juge ñu dugalaat ko ci jeu bi léegi bii baa bu ñu leen génn ñoom bu ñu saagawaatee ay juge kenn du leen jàpp de bu fi génnee bu la génnee nga taxaw ne juge dañoo dañ leen corrompre ñu daal jël sama clé dugal ci ay touriste bokkul ak leneen ak leneen bu fi jàpp kenn bu fi jàpp kenn fu ñu kañ la ñuy dem donc loolu moo tax tey jii décision bi mu jël ni démb xaw ma ku ko conseil ak xaw ma ku ko digal waaye pour man du ku ko bëgg du ko bëgg du ne xaw ma ku ko conseil décision ak ku bëgg du Euh, muy muy muy muy PM Amadou Ba muy conseil constitutionnel muy président assemblée nationale xam naa ni mu da leen a yëgal. Mhm. waaye bu leen laajoon conseil constitutionnel du ko bàyyi tey lii mu def mu def. Ah, parce que lii mooy. Mhm. décrédibiliser conseil constitutionnel te ñoom xanaa du ñu nangu ñu ne décrédibiliser xam naa peut-être da leen a yëgal mais consulté wu leen comme ni mu leen doon comme bi mu bëggee wàññi mandaam yaa ngi dégg ni mu ko ni mu bi mu bëggee wàññi mandaam ni mu leen consulté woon bu leen ko consulté ko jox xalaat bi. mais parce que lii ñu ko bëgg a def nii munu ko. Mhm. bokkul ci ay prérogative am. moomu ko de. moomu ko. Mhm. ku mënul yokk sa mandat mën nga ku mënul wàññi sa mandat mën nga ko yokk. mais après fi mu ñu jëmee sax mooy ban conseil constitutionnel. mooy mooy mooy hmm? taxawati. ban conseil constitutionnel mooy est-ce que. Euh, crise dañu jëm non li ma la wax mooy bi nga xam ne si daf ko décrédibiliser euh, euh, conseil conseil nga xam ne si nii tey bokk na ci ñi ñu gën a wekk léegi ñoom ñoom bu reprendre processus bu conseil constitutionnel ban taxawaay la ñuy am. ah maanaam yéen yéen dooroon ngeen xanaa day falaat ñeneen. léegi ñeneen ñooñu ñuy dalaat léegi bu fi falaatee keneen après nga gis taxaw ñu taxaw ñu ne leen lan ñii wóoluwuñu leen nag kii mu fal lii laa kii mu fal lii laa duñ dugalaat ci beneen problème. mais nag yàgg nañ ci fii la fekk Sénat ñu ne jox leen waaj fi mu jël balee leen ñoom ñëpp. waaw ah ñëpp toog di seetaan. Mm. c'est-à-dire lii nuyoo woon na en fait. Mm. ba kenam la ci teg nuyoo woon na ñii bëgg a yëg si nguur gi du ñu yëg si xañ naa ko DGE gars yi noo amul problème mu xañ ko CDC ba dem ba candidature Sonko mu génne ko teg ko nële mu yebal leen numéro 2 mu bokk léegi ñu taxaw ba si ay ministre taxaw naa non mënuñoo comprendre ku tax sa parti ngay bokk ci élection hmm. léegi dañuy reprendre lépp à zéro après bu ñu ñëwaatee ñu kale Bassirou Diomaye pale euh, kale keneen Karim Wade jàll kon élection yi di ñëw Karim mu parrainage à supposer. ñu dem ci élection am problème parrainage waaw mais mais ko am parce que euh, am na. député yi waaw j'avais oublié am na ay député euh, bu demee foofu léegi mais ñenn am pare problème parrainage. maanaam ñeneen ñi jàlloon ñi nga xam si jotuñu jàll vingt yi jàll nii nii am ñu ci am problème parrainage fu ñu jëm. loolu loolu la ñuy wax